dañuy dañuy des ci Covid bi ba tey mais euh, benn aspect boo xamante ni xaw na ko laal euh, mu di euh, wàllum emploi des jeunes ndax gis nañ ne Covid bi amee la ñu gis mën nañ def rapprochement bi ni que si lañ gis réew lii di immigration clandestine bi ba ñu bëri faatu si ñàkk si seen bakken ba jamono ji sax réew mi mi ngi teg ay euh, conseil boo xamante ni moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllum en tout cas euh, mbir yoo xamante ni voilà euh, conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes waaye itam di laajte ay rapport yoo xamante ni dañuy xool financement yi ñu doon dugal ci wàllum emploi des jeunes ana fan la nekk yow da nga nekkoon ministre de la jeunesse est-ce que foofu aussi du findeel ni am na fenn foo la jon diir bi nga nekkee woon ci ministère bi as tout d'abord avant may nekk ministère de la directeur général de l'emploi la ñu nekk mhm. muy l'emploi des jeunes des banlieues kon ci domaine boobu dama yaakaar ne quand même am na ci apport boo xamante ne war mën a apporter ci expérience bi nga xamante ne personnellement dund naa ko ci par nga am ci wàllum ci wàllum yore euh, yëfi état ma ma ma gis ne le président de la république parfois sax bu demee conseil des ministres laaj gouvernement bi ne nañ ko defal benn bilan Euh, loolu dama ko ci mm, préciser rek demander benn bilan damay dégg yenn yenn ci seen nattaango yi ñu ne est-ce que président de la république am na information yi lan moo tax muy demander loolu mais en général le président de la république li muy def ci conseil des ministres c'est quand même donner euh, des directives des instructions wala des décisions yoo xamante ne da koy jël ci directive yi wala instructions yi mun na instruire un membre du gouvernement mu defaral ko Euh, le bilan l'état des lieux de son secteur ci benn secteur boo xamante ne da koy da koy ciblé ni na ko defal état bi loolu bu koy def c'est pas parce que moom amul information bi puisque le président de la république nag au quotidien képp ku yore loo xamante ne moom moo la ko dénk di nga envoyé ay not bilan kon moom ci boppam xam na exactement li nga xamante ne ñoo ngi koy liggéey au quotidien mais information am na bonne information am na bu ko laajee bu ko laajee ci conseil des ministres puisque dinañ xam quand même la la la la la solennité du conseil des ministres. bu ñu paree euh, communiqué conseil des ministres day am mu ñu rendre ko publique mu nekk la bonne information donc le président li muy sàkku ci nañ ko defaral bilan c'est pas pour son information c'est d'abord la première chose c'est que le gouvernement ci boppam dans son ensemble ministre yi nga xamante ne ñoo ci nekk puisque ministre bu génn yaa ngi représenter sa morom en conseil des ministres ñu mën. département bu ci nekk partager information yi nga xamante ni ci sa département ak tous les membres du gouvernement pour que ñëpp nekk au même niveau d'information deuxième bi mooy deuxième cible bi c'est la population c'est le peuple sénégalais bi nga xamante ne à travers la solennité du conseil de ministres le président di clairement que le bilan tel et tel et tel nga xamante ne information boobu bu fa génnee information officielle la donc li président de la di jublu ci demander bilan yooyu c'est d'abord pour informer juste et vrai les populations yi nga xamante ni tey ñoom ñoo am droit à l'information beneen bi ci topp mooy. Euh, mais mais loolu mais aussi du wane ni yeex am na c'est-à-dire loo xamante ni waroon nañ ko jot depuis très longtemps ñu xaar ba jamono jii di ko doog a am te booy xool sax dafa am xew loolu moo tax ñu laaj ci rapport yi muy li nga xam ni moom la Boubacar Seye soulevé woon. mooy li ma mooy li ma lay wax. tey le président de la République naa la c'est pas information le président de non seulement not yi nga xamante ne mu ngi koy jot ci képp koo xamante ne dañ laa dénk institut public président de la république est entouré aussi par maanaam une palette de conseillers ku ci nekk ci domaine bi nga xamante ne foofu la ñu la def donc le président il a les informations à réelles mais li président di sàkku mooy d'abord une information partagée avec le gouvernement mais aussi population bi à travers lu communiqué du conseil des ministre ñoom ñu mën a am une information réelle nga xamante ne yéen journalistes yi aussi bu ñu jógee ci conseil des ministres ñu def bilan bi di ngeen mën a am la véritable information bi nga xamante ne moom mooy war yéexul puisque nag réew boo koy jiite c'est beaucoup de secteurs beaucoup de domaines chaque jour chaque mercredi il y un conseil des ministres pour faire le bilan d'un département le bilan d'un d'un d'un secteur ou d'un domaine boo xamante ne tey am na ci kon président bu koy laaj c'est pour réellement donner la bonne information aux populations de la République et exactement aussi quelles sont les véritables directives ou Euh, instruction ou décision yi nga xamante ne war nañ koo mën a jël. kon mais mais léegi maintenant euh, lan lan lañ lan moo mën a expliquer li nga xamante ni moom moo di euh, financement yi ñu dugal ci ay emploi pour ndaw yi mën a fee toog ñu jékki-jékki gis leen ñu daal di reprendre même si que Covid bi moom xam naa ne moom ngay nar a jël comme comme comme peut-être benn raison mais yan raison yu gën a yoo xamante ni mën nañ jàpp ne lii la en dehors de Covid 19. moom la ñu jàpp ne loolu moo tax mbir euh, mbir yi gën a metti surtout si 2020 bi nit ñi jëlaat pirogue yi di dem emploi yi gën a sooxee si si si si ndaw yi encore. dëgg la Covid bi euh, di nga ma di nga yaakaar ne moom lay jël comme prétexte mais cette fois-ci duma jël Covid bi élément la ci rek mais quand même c'est pas c'est pas du cause principale bi cause principale bi il faut les anthropologues anthropologues les sociologues étudier. maanaam l'être humain te bu boobaa am na ay études yu bare bare mais soxla na ko way si si si am na études yu bare bare mais am na ci loo xam ne aussi soxlawul ñuy dem jégaan di dem xooli anthropologue fi ma lay fi ma lay wax mooy am na études yoo xamante sax génn na ba révéler clairement que nit ñi besoin bi ñu am pour voyager c'est pas seulement pour avoir pour des questions d'emploi c'est pas seulement ça les gens kenn mënu leen tere voyager maintenant qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que l'État du Sénégal est en train de faire pour ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy prétexte ne problème yi emploi la yan mécanisme lañ mettre en place au niveau de notre pays pour permettre ñooñu ñu toog liggéey tekkee fi ba pare mu ngi fay am liggéey tekkee fi. mais loolu laa la doon laaj moo tax ma ne est-ce que réellement ba nga nekkee direction de l'emploi nekk en même temps ministre la jeunesse est-ce que yooyu lee am li nga tegoon comme ay politique am gis nañ gis nañ njëriñ bi on a comme l'impression que gisuñu njëriñ bi moom la état bi teg man dama doon doxal rek benn politique boo xamante ne état di Sénégal moom moo ko mettre en place man ma nekk ki nga xamante ne man maa koy coordonné en tant que directeur général ou en tant que ministre nga coordonné ko pour li nga xamante ne mooy la promotion de l'emploi des jeunes loolu laa doon expliquer dafa am histoire dafa am historique puisque nit ñi dañuy jàpp dañuy xëy rek ne dañuy xëy rek ne immigration clandestine problème yi sous-emploi la alors que cause yu bëree bëri ñoo ñoom ñoo ci nekk am na problème yi su euh, manque d'emploi waaye am na problème boo xamante ne problème problème yi doomu aadama la bi am besoin voyage migrer dem feneen ak feneen léegi li nga xamante ne nag moom moo ci nekk ci leneen mooy am na prétexte sax ñu ne Union européenne euh, euh, financement yi nga xamante ne def na ko ci biir réew mi à hauteur de cent 138 milliards de francs fa bi nga xamante ne injecté na ko ñu am seen benn confrère boo xamante ne wax na ko est-ce que la mais loolu tey waruloon a nekk focus bi focus bi xam nga lan la waroon a nekk. suñu confrère wala ku nekk ci. mbirum waaw ONG. koo xamante ne daal dafa yor ONG du suñu confrère Boubacar Seye voilà mooy monsieur Seye donc am na information yoo xamante ne génne na ko man jàpp na ci ci ci ci ci ci principe bi lu ko war la mu alerte nit ñi ci yenn yi waaye boo demee bay wax aussi ci yenn yi da nga cee war a am ay firnde yu leer beneen bi mooy loolu waruloon a nekk focus bi puisque nag 138 milliards. un centième la ci li nga xamante ne l'État du Sénégal à travers le budget consolidé d'investissement de l'État li nga mécanisme yi nga xamante ne mu ngi koy def di ko di ko di ko def exclusivement pour la promotion de l'emploi tey mën naa la wax le président de la République Macky Sall depuis ba mu nekkee à la tête de ce pays li mu njëkk a def ci wàllum emploi loo xamante ne tey war nañ koo mën a saluer jëmale ko ci ndaw ñi mooy ba mu ñëwee dafa essayer rationaliser lépp loo xamante ne jëm na ci euh, structure yi nga xamante ne ñoom ñoo doon dox ci wàllum emploi ci noonu laa nekkee woon directeur général de de l'AGEP an ANPE ANPEJ ANEJ ANEJ ANEJ nekkoon fi ANIDA nekk fi keneen nekk fi président euh, dajale ko euh, structure yooyu ñi ngi gën a multiplier wu te gisuñu ci benn non c'est-à-dire que gis nga lool boo gis nga la gestion de l'emploi la gestion elle est holistique boo koy xayma doo ko xayma ci yow am nga un emploi mais dafa am parcours dafa am processus boo te ni foofu lañ koy jële di ko jël benn par benn di ko indi bi ci jiitu mooy d'abord euh, environnement des affaires bu État du Sénégal est-ce que prêté na prêté na à un investissement massif boo xamante ne dina créer production puisque tant que créé woo production mënoo créer emploi est-ce que Sénégal nekk na ci réew moo xamante ne ci environnement affaire les investisseurs yi nga xamante ne ñoom ñooy créer ay entreprise am nañ gis nañ fi profil boo xamante ne war nañ koo mën a def am fi ay profil dem créer waale emploi loolu président de la République a refait la signature du Sénégal da koo defaraat ba telle sort que tey gis nga réew gis nga plan Sénégal émergent ba ñu demee di laaj un montant presque double bi wala trois fois lañ am loolu environnement des affaires bu bu prêter à un investissement moo ko mën boobu mooy environnement des affaires boo jógee ci environnement des affaires. ci loolu est-ce na tamit euh, ndamoo loo xamante ne après da nga koy euh, ñoo koy génneewaat di ko fay est-ce